salaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal ñu ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di présenté wu Amadou jàll ñu gën ma xam ci Galamou Thiam Diallo di président association mbedd bi du mbalit euh, di porte parole euh, amicale contingent 22 muy aussi une association donc nag euh, mi ngi noonu di citoyen sénégalais. mbedd mi du mbalit suñ koy traduire en français dafay nekk la rue n'est pas une poubelle donc nag mu nekk une association boo xamante ne dafa regrouper ay jeunes. bon noyau dur bi nag Grand Dakar la mais euh, fu nekk la la la membre yi nekk ñu ngi si ñi ngi Dakar ñu ngi ci région yi ñu ngi fépp. liggéeyu mbedd bi nu bari d' abord moom mooy euh, sensibiliser sensibiliser nit ñi ci euh, environnement bi ñu nekk ñun ñoo ko war a sàmmal suñu bopp keneen du ñu ko du ñu ko sàmmal ndax environnement bi ñu ñoo ko occupé chaque jour ma wax ko. li ñuy passé si mbedd bi moo ëpp lu ñuy passé soo ko xoolee moo ëpp lu ñuy passé si suñu kër yi parce que bu ñu xëyee di liggéey si mbedd bi la ñuy jaar bu ñuy retourné tamit si mbedd bi la ñuy jaar donc bu ñuy faju ji bu ñuy jàng ji lépp activité bu ñuy mënti def boo xamante ne defuñu ko si biir kër gi rek on est bu ñuy jógee point A dem point ci mbedd la ñuy jaar donc am na si ñoo xamante ne li ñuy nekk bu ñu ko jëlee ci ñi nga xamante ne ñooy marchand ambulant yi li ñuy nekk ci mbedd bi moom moo ëpp donc nag mbedd mi dafa nekk dafa nekk quelque chose boo xamante ne Euh, njëriñ la pour ñun donc ñun ñun ñoo ko war a ñun ñoo ko war ñu xaar ma sàmba wala wala ma demba wala ñuy xaar benn benn structure étatique bu ko war a bu war sàmm naam seen devoir la mais tamit ñun droit la su ñun en tant que citoyen tamit ñu jàppale leen si sàmm boobu. mbedd mi nu mbalit tout au début concept la woon rek ay 2004 2005 lañ bon laa ko créé woon man mu nekkoon concept bon à la muy dem muy euh, nit ñi di ko gis di ko di ko épouser ba ay deux mille deux mille dix deux mille dix neuf su ay deux mille dix neuf période Covid bi sax moo moo moo freiné moo freiné les papiers parce que boobu la ko commencé woon constituer en association. mu nekk quelque chose boo xamante ne nag ko nit ñi wuysee on était obligé ñu dem wuti ji ay ay ay kayit mu nekk quelque chose boo xamante ne lu formel la parce que ay benn nit moo ko porté woon mu dem ba ay doomu aadama ñëw gis seen bopp donc waratul nekk image yu benn nit dafa war a nekk quelque chose boo xamante ne euh, mbooloo moo ko moom après nag c'est le Covid bi ñëwee Covid bi bu mu nag dañuy teg lépp parce que jamono boobu noonu bon en tant que militaire li ngay gis mooy lii c'est une guerre la quoi c'est une guerre parce que Covid bi il fallait que ñu xeex ak moom bi ñu paree si euh, bi ñu paree si xeex ak Covid bi nag nga gis effort bi nga xamante ne jeunesse bi def nañ ko nga gis effort bi nga xamante ne bon ñu nekk ci biir association bi def nañ ko si lañ gën a taxawee nag ni lii nag warul waratul waratul naax saay ba. yàggul ci après koor gi dañu yàlla dimbali ba récépissé bi génn mais bu ñu xoolee concept la boo xamante ne depuis 2003 2004 2005 lañ ko doon conceptualisé. activités yi ñu def yàlla dogal na bëri na bëri na macha allah euh, mais bokk comme que dañu nekk ci réew moo xamante ne euh, li li li des moo ëpp li ñu li ñu li ñu defagum et que c'est dëkk la boo xamante ne tamit on il a besoin de tous ses citoyens donc lépp lu ñu def rek. dañ koy dañ koy xeeb parce que saa suñu sañoon lu ñu def tey déwén ñu def lu ko lu ko ëpp yàlla dogal na dañuy dem ci ci école yi parce que chaque jour moo ko ci ci télé yi la répétition elle est pédagogique mais malheureusement on est désolé de le dire mais bu école tijjee suñu parents yi ñoom ñooy def école yi dépotoir d'ordures boo xoolee trois mois yëpp seen école seen seen seen mbalit yi ci ginnaaw mur école yi lañ koy def ba pare après école bu tijjee ñu bëgg doom yi jàng ci condition yu baax et que du loo xamante ne dafay dafay jëmale réew mi kanam donc dañuy intervenir ci école yi dañuy intervenir ci centre de santé yi dañuy lépp loo xamante ne édifice la muy public dañ ciy dañ ciy intervenir lépp loo xamante ne environnement la rek dañ dañ dañ ciy dañ ciy ñëw pas plus tard yàggul euh, ci mois de ramadan bi dem nañu euh, pendant un mois défectionné commissariat wu police de Grand Dakar te mu nekk benn acte tamit boo xamante ne euh, mën nañ ko boole ci ci acte yi nga xamante ne def nañ ko chaque année tamit xam naa loolu dinañ ci ñëw muy euh, désherbage bi chaque année dañuy dem cimetière Yoff et calendrier la dañuy dem cimetière Yoff dem cimetière Saint-Lazare donc daal di koy élaguer am na activité yu bëri yoo aussi tamit dañuy yëngu si social mais aussi tamit dañuy yëngu tam si éducation parce que lii yëpp pour mu am il faut xale yi ñu ñu yar leen lii yëpp pour mu am il faut xale yi ñu ñu am une une très bonne bonne éducation te loolu tamit gis nañu ne Sénégal dafay xaw a moom yàlla mi ngi ñuy suturaal ba ci fonds la ñuy demee moom mooy euh, bi ñu tegee concept bi comme ni ma la ko waxee rek ay nit dañoo ñëw wuyu si ko nit ñi nag bi ñu ñëwee ñëwuñu kese physiquement mais dañoo ñëw tamit su le plan financier sur tous les plans nit ñi dañoo dañoo ñëw bu ñu amee activité boo xamante ne dañ koy def ñun ñun les membres d'abord ñun ñooy cotiser balaa kenn di ñëw ñun d'abord ñun ñooy cotiser du ñàkk nag dina am ay benn bonne volonté yoo xamante ne ñoom ñooy gis li ñuy def ñu yëkkati seen def si ñu seen matériel def si ñu seen xam-xam def si mais en un mot daal mbedd mi du mbari fonds propre lay dem su mu nekk nii euh, ren dañu dañu dañu dañu amoon trois projets beneen bi muy sécurité parce que c'est c'est quelque chose boo xamante ne sans loolu lii mënul am beneen bi muy la santé aussi tamit sans loolu mënul mënul am beneen bi muy muy environnement te am na si benn boo xamante ne def nañ ko muy euh, commissariat wu police su Grand Dakar ndax euh, ndimbal da siy fekk loxol loxol borom tey jii ñun sécurité bi ñu bëgg si ñoom lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko yaakaar et que gis nañ commissariat bi mu mu nekk état boo xamante ne nii c'est un peu ñun en tant que citoyen en tant que doomu Grand Dakar en tant que ay sénégalais ñu jug ne dañ koy dañ koy defar defar bi du dañuy toj commissariat bi defar ko mais am na côté yoo xamante ne mën nañ ci intervenir muy la peinture décoration bi yenn matériel yi nga xamante ne ñoom dañ koy soxla ñun population bi comme que bu ñu leen wooyee dañuy ñëw wuy si ñun war nañ mën a dajale loolu dem si police bi dafa ko ba pare ça ça permis aussi ñu saafonte ak ak ak de tenue yi mu nekk une première boo xamante ne gis nga civil ak homme de tenue ñu toog ndogandoo benn sur sur place et mu nekk quelque chose boo xamante ne ñëpp ko ñëpp ko rafet rafetlu ñëpp ko ñëpp ko saluer beneen bi muy muy muy muy la santé muy dañuy dem ci centre santé yi euh, li nga xamante ne moom la am comme matériel muy don ñu yóbbu ko fa li nga xamante ne tamit moom la ñu mën a intervenir parce que la plupart boo demee si centre de santé yi dañuy gis dañu am ay manquement yu ñu am te ay manquement yu dérisoire lay nekk soit ay chaise lay nekk mooy nit ñi bu ñu fu ñu toog dafay dafay nekk problème te yooyu population bi mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko chargé wu mu nekk ay des yenn murs yoo xamante ne nii état bi dafay dafay délabré wu noonu population bi mën nañ ko mën ko chargé wu bi nga xamante ne nag si lañ jëm euh, bi parce que bon on peut pas parler de d'environnement sans pour autant parler des cimetières parce que c'est environnement bi la bokk et ñi fa tëdd euh, si ñun lañ jógee ñun ñoo leen fa yóbbu donc nag euh, war nañ dem di leen nemmeeku war nañ dem di leen di leen di leen di leen ziar que pour ñu nemmeeku leen pour ñu ziar leen dafa am ay conditions yoo xamante ne il faut mu am condition yooyu benn mooy foog mu set foog mu accessible donc suñu grand Cheikh Kébé mi ngi nii ànd ak ñun moom moo gérer tout ce qui est organisation dañ koy bàyyi moom mu ñëw comme ça moo dugg ci ci détail salaamaaleykum waa Sénégal waa grande car Serigne Cheikh Kébé membre Mbedd Lu Mbalit activité bi ñu ngi si toll ci sensibilisation bi ak euh, ci phase préparatoire bi maanaam ci taf autocollant yi flyers yi déposer flyers yi dugg ci ressources yi pour yëgal ko population Grand Dakar. Euh, li ñuy njëkk jàpp mooy mois d' octobre du premier octobre ba fin novembre. ñu jàpp ci quatre dates muy quatre dimanche war nañ dem Yoff Saint-Lazare biñ ci yokk mooy yaraax bi mooy quatrième audition yokkute bi mooy yaraax bi ñu war a dem parce que yàgg nañ koo def demoon nañ Saint-Lazare dem Yoff bii ñu ne dañ ci yokku yaraax ngir gën a mën a dispatcher affaire yi quoi désherbage bi ñu ngi soxla moyen ay râteau gant ndox collation parce que ñu ngi ci jamono nawet boo xamante ni foofu dafay tàng ñu ñuy soxla tamit ressources humaines surtout parce que ñu ngi ciy woo ñëpp parce que population grande Dakar daaw def nañ ko bi ñu ñëwee lañ leen sensibiliser ñoom ñëpp ñëw ren ñu ngi leen ciy woowaat ressources yi en premier ñun ñëw si jiitu avant lancement appel bi di woo bonne volonté yi ñu ñëw si di par des cotisation après nag comme te loxo jotul ginnaaw ñu ci woo toutes les bonnes volontés de Grand Dakar bu ma nee Grand Dakar nag ñi fi dëkk ak ñi fi dëkkul diaspora bi ci lañ bokk parce que affaire bi du affaire bu yomb parce que désherbage bi moyen de fàttaliku suñu moor yi la parce que ñoom ñu ngi foofu te du mënatuñ dara parce que climat bi fi mu toll nii ak intempéries yi. nit dina jóg bëgg dem ci cimetière yi ñaanal néewam accès bi du facile léegi liy waral loolu mooy ñax bi day jóg ndox bi li muy yàq day bari moo tax chaque année dañuy wootee désherbage boobu pour sensibiliser nit ñi ñuy dem di fàttaleeku néew yi fa tëdd ku ñu bëgg dimbali euh, da wootee am nañu benn trésorier bu tudd Basbouri numéro téléphone am di 77 758 37 cinq am na Orange ne am na Wave ndimbal ku ko bëgg joxe rek mën na jaaree par voie boobu def naa moo gën a facile. li ñuy daanale daal ñu ngi lancé appel toute la population de Grand Dakar et aux alentours waaw di ci woo ñëpp surtout les autorités étatiques yi nekk Grand car bàyyiwuñu kenn commencé maire bi ba si ministre bi ba ci simple citoyen yi ñu ci woo ñëpp. bu fekkee ñi nga xamante ne ñi ngi yëngatu ci ci environnement ñun ñoo demagul vers ñoom parce que comme ni mu leen ko waxee rek mbedd bi mbali processus la dafa am processus boo xamante ne moom lañ nekk di liggéey parce que tamit euh, kilifa moom boo koy woo da nga koy woo ci loo xamante ne lu légal la donc dañu liggéey pour euh, sensibiliser nit ñi def les activités comme ça ñu mën a am. parce que ñu tolloon ci phase bu tànn tamit parce que nga dem nouvelle femme principe yi ñuy doxee principe yooyu noonu ay valeur daf ci bokk valeur yooyu noonu il fallait que ñu tànn tamit ñan ñooy nekk les membres de Mbedd Mbedd du Bari phase euh, jàll nañ ko fi mu nekk nii nag li euh, nga xamante ne jàpp nañ ne soxla nañ ko am nañ ko léegi nag dañuy dem ci ci beneen phase ñi nga xamante ne yàlla dogal na ñu nekk fii euh, di liggéey ci environnement incha allah rabbi dina am programme boo xamante ne dinañ ko teg ay dem seeti ji leen leneen li si des moom mooy su fekkee autorité yi nga xamante ne mooy gox bi ñu dëkk ak euh, ñi ñu wër activité bu ñuy def yàlla dogal na dañuy dem ci dañuy dem ci ñoom mais bon comme on dit rek ñun yàlla dafa dogal que ni am na lu bëri loo xamante ne xaaruñu ko ci du xaaruñu ba soxla dooruñu aussi ñëw ci nit dañuy waajal suñu bopp ba pare donc li nga xamante ne moom mooy suñu cër mooy ñi nga xamante ne yàlla dogal nañu yàlla teg leen fii ñu suñuy kilifa dañuy dem vers ñoom ku ñëw dañuy sant yàlla ku ñëwul tamit dañuy dañuy dañuy sant yàlla mais am na si ñoo xamante ne des fois dinañ répondre am na si ñoo xamante ne duñu répondre bon li ñuy daanale d'abord moom mooy euh, di sant ñëpp ah, di gërëm ñëpp di wax nit ñi rek que ni euh, wax neexul donc lépp lu si dëng rek nañ jàpp ne ñun la suñu matadi la lépp lu si jub rek yéen yéenay jubanti ak seen xel mu sell et que mbedd mi du mbalit c'est une association boo xamante ne tijjil nañ ko ñëpp tijjil nañ képp koo xamante ne rek citoyen nga ngay sénégalais tijjil nañ la ko et que comme ni ma ko waxee euh, projet bi pare na yàgg na dafa am lu ñu doon xaar rek te loolu mat na incha allah rabbi bu neexee moolaana ci ay fan yu néew bu ñu jugee ci désherbage bi dina moom un programme boo xamante ne dinañ ko présenter population sénégal sénégalaise bi ku si nekk tamit dañ la ki dañ la ci woo comme ni nga ko waxee noonu muy képp koo xamante ne rek yàlla dogal na nga yëngatu sa environnement dinañ ñëw fekk la fi nga nekk képp koo xamante ne rek muy muy euh, muy autorité dinañ dellu si waat présenter la le projet ekkati ñu leen di woo rek ñu gën ñu gën ñu yombalal gis bi parce que am na ñoo xamante ne tamit yàlla dafa dogal ñu dëkk Grand Dakar mais ñu pour ñu am accès ñoom dafay xaw a dafay xaw a métti donc ñoom ñoo ñu war a ñoo ñu war a tijjit bunt yi parce que li ñuy def jaamu yàlla la.